suñu mbokk journaliste yi euh, di leen sant ci seen teewaay euh, tey nag dañu bëggoon a waxtaan ak mbokki Sénégal ci ni réew mi tëddee ak ci ni àddina tëddee euh, li ñu bëgg a njëkkee mooy sargal président Macky Sall président de l'Union africaine mi nga xam ne mi nga xam ne Euh, jóge na fii euh, dem fale ci Russie euh, ci contexte bi nga xam ne xam nañu ko muy contexte su guerre te guerre woowu gis nañu na mu indee ay jafe-jafe ci dëkk yu bari maanaam ci suñu dëkk Afrique yi mu jël roplaanam dem ba foofu waxtaan ak ñoom pour fexe ba li nga xam ne moom la ñuy dundee te mu am solo tey jóge ci boor yooyu mu mun cee waxtaan ak euh, ñoom pour que njëg yooyu vraiment ñu dal di ko yombal dund bi mën a yegg si notamment liñ naan blé ndax moom la ñuy defalee mburu euh, loolu nag euh, ñëpp a nga ko ci sargal bu baax a baax a baax di ko félicité ndax bu ko defuloon bu ko defuloon kon làmbaay ñaaw kon président de la république félicitation ngàcce jaaraama monsieur le président de la république ñu ngi lay aussi ndokel bu baax di la encouragé ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ànd koog sa naataango yi ci union africaine pour suñu mbokk malien yi seen situation dellu si waat ci normal bu ko defee seen dëkk dalaat ba ñoom it ñu delluwaat ci seen i activité ak ci seen i sago kon nag loolu it ñu ngi la ci ndokkeel ñu ngi la ci encouragé euh, pour que crise boobu dal di gaaw a jeex suñu mbokk Mali yi delloowaat vraiment ci seen sago monsieur le président de la république ci liñ lay gën a féliciter nag ñun les sénégalais ak ñun ñi nga xam ne dañu am fierté bokk ci sa parti bokk ci sa coalition mooy maanaam mesures yi nga xam ne jël nga ko pour jàppale xeetu Sénégal ma tàmbale ko ci li nga def ci wàllu ceeb ci wàllu suukar ci wàllu diwlin ak ci wàllu farine bu nu xaymaa li nga xam ne def nga ko ci alal daanaka mat na deux cent vingt deux milliards pour mën a téye njëg yi pour téye ko ba askan wi vraiment du metti ci ñoom ñu gis aussi li nga xam ne def nga ko ci wàllu courant ak électricité bu ñuy seet dugal nga ci déjà cent cinquante milliards te xam naa ne fileeg année bi jeex li nga prévoir mooy def ci cinq cent milliards xam na ñu ne aussi téye nga njëg yu bari téye nga njëg yu bari gasoil yokkuwul li tax yokkoo gasoil da nga xam ne parce que foog ñu jàppale suñu mbokk transporteurs yi foog ñu jàppale usines yi ndax usines yi gasoil la ñuy liggéeyee nga nag lu baree baree bare doonte super yokku na foofu nag ma taxaw ci tuuti super dafa jógee dafa jóge sept cent soixante quinze dem ci huit cent quatre vingt dix le litre waaye ma xamal mbokk yi ne dëkk bi nga xam ne moo ëpp petrole États-Unis la du Arabie Saoudite dañuy faral di foog ne Arabie Saoudite la mais États-Unis la boo xoolee États-Unis ci waxtu wi ñuy wax litre super mu ngi jar mille deux cent vingt trois kon ñooñu yor essence ci seen dëkk di ko fabriquer foofu yor ci ay réserve seen njëkk ëpp fuuf plus de trois cent francs suñu njëkk fii kon xam ngeen ne président liggéey lii mooy yore réew lii mooy yore réew lii mooy tax réew naat lii mooy tax réew jëm kanam kon loolu it war nañ vraiment fexe ba ñu mën cee ba ñu mën cee ba ñu cee vraiment euh, mën cee dem ba nga xam ne bi suñu mbokk yépp incha allah dund gi dina woyof ci ñoom président ñu ngi lay gërëm ci sa yërmande ñu ngi lay gërëm ci bàyyi xel sénégalais yépp sénégalais des villes hommes sénégalais de campagne ñu fàttali nag aussi li président def ci suñu mbokk jàngalekat yi suñu mbokk jàngalekat yi defe naa ne mosu leen am bu yokkoo ni mu yokkee ren macha allah macha allah li tax président def ko mooy dafa xam seen njàmbaar d'abord ak xam seen importance ci jàngal xale yi ndax gone da koy jàngal da koy jàngal ci livre mais da koy jàngal aussi ci ni moo war a waxee ci mu ni mu war a tegginoo ndax nag vraiment dinañ ci dellu si loolu am na solo daanaka ñoom buñ leen boolee ak ñi nga xam ne ñooy les corps habillés bokk na ci Eaux et bokk na ci armée daanaka président def na cent vingt milliards dina ko ci def fi léegi décembre pour payor yooyu yokku président aussi bàyyi na xel lool lool lool xale yi les jeunes bañ na ko ba bi muy def listam gis ngeen ne jeunes yi macha allah am nañ ci position bu am solo amul liste boo xam ne amul liste boo xam ne ëppale nañu ay jeunes ay jeunes fi comme ay jeunes de jeunes hommes moo tax aussi mu bàyyi xel ndawu Sénégal indi programme xëyu ndaw ñi dal di ci def cent cinquante milliards ministre Dame Diop bi muy xayma xayma na création wu soixante mille huit cent emplois te liggéey waa ngi xal di continuer ñu ngi koy encouragé bu baax a baax xam ngeen ne aussi président xam na ne ak guerre Ukraine ñu jóge ci Covid ñaari at maanaam bëri na ñoo xam ne seen liggéey xaw na sooxe mu ne naa seet sénégalais yi nga xam ne soxla nañ ko mu yëkkati lu toll ni 43 milliards def ko ci transfert nit ñi jot ko ci seen téléphone daanaka 558 familles yi jot nañu lu jógee ci état ah, cinquante huit mille familles cinquante huit mille familles fekk si fekk si attention fekk si trois cent mille familles yi nga xam ne ñoo doon bourse familiale cinquante huit mille yoo xam ne jot nañ cash fekk si trois cent mille familles yoo xam ne depuis deux mille douze ñu ngi doon fekkee loolu ñu boole ci nag aussi voilà ñu bokk ci aussi couverture maladie universelle chaque année ñu am ci vingt milliards yoo xam ne dinañ leen ko jagleel pour nit ñi yombalal leen seen faju kon loolu it aussi bëggoon nañ ko wax ñu xam ne nag loolooy réew réew du rek yor micro di xaste di teg lu ñaaw ci deru kilifa ñoo xam ne yi mat nañ la bàyyi wala mag nañ la day loolu du politique loolu xale yi bu leen ci topp kenn bu leen kenn entraîné ci ngeen gis ku leen mot lay wala ku leen mot bàyyi ngeen di yëkkati yenn kàddu yi di ko teg ci deram loolu diine daf ko sib loolu suñu aada daf ko sib loolu bokkul ci civilisé kon les jeunes sénégalais euh, ñoom xam nañu ni ñu war a waxee ñi nga xam ne euh, vraiment ñoom la ñuy jànkonteel euh, ndax bañ a déggoo loolu fii lañ ko fekk démocratie day am ñu d'accord am ñu d'accord waaye li am solo rek mooy ñu wegante ñu joxante cër rawatina nag jox cër institution yi ndax institution yi dañu am solo euh, loolu it am na solo am na solo euh, loolu it euh, vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax alors ni nga xam ne aussi am na solo li nga xam ne am na solo li nga xam ne am na solo mooy mbokk yi li nga xam ne am na solo aussi mooy fekkee nañu fekkee nañu décision wu conseil constitutionnel conseil constitutionnel daanaka mooy bànqaas bi nga xam ne moo gën a kawe mooy seet ci sunu justice am na ci décision yoo xam ne ñu neexuñu waaye dañu koy nangu parce que nous sommes des républicain ñu ngi wu suñu grand responsable yu jigéen yi ak yu góor yi nga xam ne ñu ngi woon sur les listes des suppléants te ñu invalider liste boobu kon ñooñu ñu ngi leen di masawu di leen ñaan ñu takku nag ba dëgër àndale la ànd ak la liste des suppléants bu ko defee ñu mën a jox à notre président de la République une grande une grande majorité à l'Assemblée nationale waaye nag mbokk yi ñu ngi ñaawlu bu baax a baax a baax déclaration yi nga xam ne dégg nañ ko démb jógee ci waa yi loolu vraiment ni ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñoom ñëpp nag góor ak jigéen ñoom ñëpp parce que vraiment mën ni ma ko waxee sànq mën ñoo doon opposition ñun ñii opposition la ñu woon 2012 kenn mësta dégg président Macky na ñu génne vidéo wala cassette bu ko wax boo xam ne génne na baat boo xam ne bii da nga naan accam musu la am musu la am dafa musa jiital correction ak fermeté nag correction yar teggin ak vis-à-vis yi même ba mu nekkee ci biir opposition loolu moo tax loolu moo tax loolu moo tax loolu moo tax loolu moo tax loolu moo tax ñuy oo notre jeunesse notre jeunesse à comprendre ñoo comprendre bu baax a baax a baax ne yar ak teggin ci la lépp di ame ndax loolu la ñu diine sant loolu la ñu aada sant kon ñu ngi ñaawlu vraiment tous les propos yi nga xam ne teg nañ ko ci deru institution yi ak ci deru ñi ko yore foofu la ñuy yem euh, di vraiment wax ne aussi leaderu Yewwi yooyu nañu xam ne vraiment boo demee ba juum moo xam juum la woon moo doon moo xam complot seen biir ñoom ñoo xam waaye ku nekk am nga ci sa appréciation listu jàmbur ñu duñu ci sori mais ñoom ci seen bopp ñoo jël seen Facebook bind ci ne seen liste titulaire baaxul ñëpp jot ko kon ñoom booy seet jaruloon a aar nga sax ci conseil constitutionnel ñoom ñoo njëkk a invalider seen bopp Ousmane Sonko pour ne pas le moo ko bind ci page Facebook am ma nga foofa mu leer nañ kon vraiment loolu it nañu xam ne euh, ñoom ñoo ko teg seen bopp décision nag ñun dañu jàppoon ne liste seen liste Dakar dañ ko war a invalider parce que paritaire wul te jigéen ñi nag dañoo xeex ay at yi at yi at yi at pour am parité voilà ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko moo tax ma ne ñoo xam dañoo juum wala dañ doon complot wante loolu ñoo ko mais ñun dañu def recours ba ñu demee conseil constitutionnel da leen a bàyyi ñu d'accord kontaan waaw bu ñu leen supprimer nag seen liste titulaire ñun ñu supprimer suñu liste suppléant ñu ne loolu du fi amee loolu mooy ban démocratie loolu mooy ban démocratie il faut que ñu xam ne réew mi kenn mënu ko taal réew mi ñu mag réew mi fi la ñuy ñëw politique ba dem bàyyi ko fi les jeunes ñëw fekk fi une démocratie bu gën a yokku loolu nañu am confiance ci loolu il faut que seen nii ñu bëgg a defee politique ñu nii ñu bëgg a defee politique ñu xam ne loolu mënul a nekk Sénégal Sénégal dafa am nu nu koy xoolee bitim réew ak fii ci réew mi ñu jogante noonu la Abdoulaye Wade amee pouvoir 2000 bu ne woon ba muy opposant suñ ma ko joxul ma taal réew mi kon du ko ma fekk bay doon président président makki Sall wax naa leen ko kenn mësta dégg mu teg ci nit ci deru nit lu ñaaw bu ne woon dam duñ ma ko joxul ma réew mi kon duñ ko fi fekk kon loolu loolu du mënul a nekk en tout cas ñu ngi wax ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange ak ñun ñii nag nga xam ne on est des acteurs politiques ñu fexe ba liñ naan l'ordre public maanaam jàmm ak salaam ak sécurité nit ñi yor seeni commerce ak seeni table loolu mën a continuer ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam kon ñun li ñu jàpp mooy affaire liste féete na ginnaaw ndax nañ fàttaliku nag ñoom dañ naan mais am nañu liste d' abord dañu commencé naan parrainage parrainage parrainage waxoon naa leen fii ne di ngeen leen gis ci kër yi ñu uti parrainage du ngeen ci mujj gis parrainage la ñu am dem déposé ko donc il faut aussi que ñu bàyyi manipulation bi voilà parrainage ñoom ñëpp ku ci nekk ku am liste déposé ko yow yi am na liste yow yi am na liste day bokk ci élection moom kay xanaa euh, xanaa patron yi kay ñoo bañ ñi ci des ñëw mais xanaa ñu suppléants yeeg titulaires yi ñoom ñëpp ay sénégalais lañu xanaa la ñu foog donc il faut que ñu xam ne dinañu dem élection bëgg bëree bañ bëree bëgg bëree bañ bëree kon loolu mooy li nga xam ne mooy message bi ñu woo suñu camarade yëpp tànn yombul tànn yombul waaye Benno Bokk Yaakaar dafa def confiance président Macky Sall dañu ko def entièrement confiance mu indi liste équilibré wax naa ko sànq ñoo ëpp ay jeunes ci liste yu mus a am ci Sénégal kon vraiment jàpp nañu ne léegi léegi takk ngemb yi musóor yi maanaam dàll yi ak euh, kab yeeg yu ni mel dem na ci terrain bi dem ci terrain bi waxtaan ak suñu mbokk sénégalais yi ñu ànd ak suñu mbokk sénégalais yi les jeunes les jeunes ñu xam ne ñu xam ne suñu jeunes yi ñun xam ñun ñoo leen yar ñoo leen jur xam nañ ne ay borom xel lañu ñoo leen yar xam ne ñu yaru lañu ñoo lañ leer xam nañ ne ñu bëgg Sénégal lañu ñoo ñu kenn du leen entraîner vers le chaos kenn du leen entraîner dans l'incivisme loolu bu ñu ko nangu politique démocratie la opposition na def li mu war a def pouvoir def li mu war a def le 31 décembre incha allah ñu daje te yaakaar nañu ne booru midi eh, dañ jàpp sax peut-être une ji dina jeex incha allah